ñi échec ba yàqule ñooy ñaari góor jigéen yi ñu bettoon keroog ca jàkka ju nekk ca Baobab amitié karak ñu fa doon def yëfi saay-saay libération nee nañu li leen feeñal moo di dafa benn femme bu toll ci kaw terasam seen leen ñoom ñaari góor jigéen ñuy warante ka wàccante mu foto leen filmer leen wax ko imaamu jàkka ja ca la imaam ba woowee polisu jëppal libération nañu ñoom ñaari góor jigéen yi li ñu wax ca police ku ko dégg jàpp sa gémmiñ ki mag ci ñoom ñaari jigéen yi am fanweeri at ak juróom moom nee na ko dal rab ñoo ko dugg di ko def loolu lu nekk fu nekk benn xale bu am ñaari at lañ fi sàkku ñu bettit ñaari góor jigéen ñuy sëy ci bisub match ba ci ab jumaa boo xam ne mi ngi nekk fii ci Karak libération yéene kaay ne ma laaj nañu leen wax nañu kaca mag am fanweeri at ak juróom nee na ab jàngalekat la te doom it gardien jumaa ja la nee na dafa am nag ak jinne ju ne ci moom goo xam ne moo koy def loo yu bon keneen ka ca des di ab guinéen bu am fukki at ak juróom benn nee na waa ji di doomu gardien ba moo ko ne dafa am loo àndal te faaw ñu dindi ko te ngir ñu dindi ko nag dañ la war a jàngal ay saar ba mu duggee nag ngir jàngalu ca la jëlee ak sijaada daal di koy lal tëral ko ja nag tàmbalee defanteeg moom lu bon ndekete am nañu leen doon gis ca wet ga di leen filmer ka photo moom mii am fanweeri at ak juróom di doomu gardien ba nee ñu nag yàgg naa menacé ay ñoñam doon lambaatu ak di sonal ay waa këram ñoom ñaar ñëpp fi mu ne libération ne ma ñoŋ ca loxol yoon